Euh, procès verbaux yi nga xam ni ñoom ñoo jógee ci bureau de vote dañoo gis ni coalition wàllu jiitoon na coalition Benno Bokk Yaakaar lu ëpp ñaari junni baat wante ñu gis ni commission départementale de recensement des votes bi mu génnee résultat yi dafa jox coalition Benno Bokk Yaakaar donc victoire bi lu ci lu tolloog mille neuf cent six voix ñu ni lool lu tax bañ demee xool procès verbaux yi nga xam ni moo génnee ci commission départementale de recensement des votes fa lañ gisee wuru ci ak njuuj njaaj ci fan la jaare ñu jaar ci juróomi poñ poñ bu njëkk bi mooy dañoo gis ni baat ya nga xam ni moom la citoyen yi bind euh, waxoon ci biir urne dañ ko changé yii bureau de vote ñu yokkal ci benn Bokk Yaakaar ay baat yee bureau de vote ñu wàññil ci euh, coalition wàllu ay baat te loolu méngawul ak procès verbal yi nga xam ni ñoom ñoo jógee ci bureau de vote yi président bureau de vote bi ak membre du bureau yëpp signé ko te yooyu moom la ñu tee déposé ko ci tribunal ñu gis ni tamit boo seetee suffrage valablement exprimé mais maanaam ñi vote ñi voté te seen vote baax nga méngale ko ak euh, totalu baat yi nga xam ne moom lañu distribué entre les coalitions dañ ci gis ay ci bureau de vote yu bari ay écart yu bare bari yoo xam ni yi saay day dem ba juróom-ñaar fukki baat yoo xam ni dañ dañuy yokk ci li si euh, ñi voté te loolu euh, kenn xamul fan la jóge ñu gis tamit ni dañoo dem ci ay benn bureau de vote yenn bureau de vote yoo xam ni dañ faa dugal ay coalition wala ay parti yoo xam ni bokkuñu woon ci élection locale yi ku mel ni coalition Yewwi nga xam ne ministre de l'intérieur moo ko teree bokk ci élection yi dans le département de Pikine ku mel ni coalition bunt bi nga xam ne bokkul woon ci scrutin ville de ville de bi mu am ay bulletins yoo xam ne dañ ko dugal ba ñu am ay baat ba sax am ay bureau de vote yoo xam ni bunt bi moo ko gagné devant la coalition wàllu ak devant la Benno Bokk gis tamit am yenn bureau vote yoo xam ne dañuy jël ku mel ni defar sa gox wala ku mel ni wàllu génn ay bulletins remplacé ko ak ay yeneen bulletin de vote yoo xam ni ay coalition yoo xam ne bokkuñu ñuul ci élection yi la yooyu wàllu walla defar sa gox duñ fa am ay baat waaye da ngay gis buntu ba ak yeewi ñoo fay am ay baat baat yoo xam ni donc ci yeneen coalition yi bokk ci scrutin départemental bi la euh, la la demoon et loolu nag bu ñu xayma nju njaajoo yëpp ci euh, bureau de vote yi ñu gis ni dafa concentré wu si ñeenti communes yoo xam ne fa lañu organiser njuuj njaaj ci ak wuru ci muy commune Pikine Nord moo ci jiitu commune Mbao topp ci commune Pikine Est ak commune Dalifort yooyu ñeenti communes ñoo nekkoon les trois communes euh, centrales donc pour organiser donc euh, les les irrégularités ci ci euh, scrutin départemental mandat bi enfin mu am aussi lu ñu jaaxal mooy commission départementale bi président cour d'appel mooy nommé président ba war a saytu liggéey bi ñu gis ne liggéey ba ci deuxième jour bi dañoo tas commission départementale bi def ko ñaar ka nga xam ne moom la président cour d'appel bi nommé woon ñu ne ko yow toppatoo commune bi rek ñu jël benn assesseur am boo xam ni wërta présider ñu ne ko yow yaay saytu li nga xam ne mooy vote yu jógee ci euh, ville de Pikine te ñu jàpp ni loolu déjà normalul ensuite wuri yéeg njuuj njaaj yi ci boobu buntu la ko gars yi jaaree donc pour man koo pour man ko pour man koo def en enfin tamit ñu gis ni ay cartes yi nga xam ni dañoo desoon ci commission départementale de recensement des votes lu garaaw laay wax ni cartes yi desoon ci commission Euh, ci commission de distribution des cartes d'électeurs xam ne sous-préfet daf ko waroon a denc ci biir bureau mu am ay ndaw yoo xam ni dañ leen a jox yooyu carte ñu ko ñu voté ko te yooyu ndaw dañoo nungu ci constat d'huissier ñu ñëw témoigner ni ñoom dañ leen jox ay carte yu nekkoon ci commission ba ñu voté ko wante ñoom amuñu woon carte électeur ba mën a bokk ci biir élection yi te yooyu constat yi dañoo boole dañ ko boole versé ko ci euh, dossier bi nga xam ni dañ ko déposé tribunal tribunal nag ba ñu fa déposé ba léegi premier février weer wi nga xam ni ci lañu waroon defee seen verdict jàll na daanaka lu ëpp fanweeri dossier yi ñu defoon ay recours ci élection locale yi yëpp vidé nañ ko ba mu des bu ville de Pikine ak bu Pikine ñi ñaan waa euh, le président de la cour d'appel ñu vider dossier bi te teg ko ci yoon ndax xam nañ ni yëg nañ ni ay pression politique ñu ngi fi ñëw pour dëggal foqarti gi nga xam ni donc dañ ko defee ci commission de recensement des votes bi ñu ngi koy ruumandaat pour foqarti ko ci tribunal ba moo tax donc ñu bëgg président euh, cour d'appel de Dakar donc mu assumer sa responsabilité pour dire le droit en toute transparence ma donc loolu tax na effectivement coalition wàllu ak opposition bi ma àndal yëpp ci biir département de Pikine defoon nañ marche euh, quinze jours yële weesu suba nag ci quatre quatre heures incha allah genou coalition yëpp yi opposition yi nekk ville de Pikine ñooy organiser benn marche bi kam bi tàmbalee quatre heures di départ ci rond point Texaco